ubbil bi service ci kàdduy leeral yu mu jëlee ci docteur Issa Labo moo jiite service urologie bu hôpital Idrissa Pouye ak bloc opératoire ba nee leen appareil bi ñu naan HLPC hôpital ba musu ko am benn structure privée moo leen daan abal bosam semaine bu nekk fi ñu nekk ni réew mi noo yeetul Sud Quotidien moo ko bind ci xët mu njëkk ba dañuy wax ne li aj nokkik Sénégal ba ñëpp na ñogg mel ne toog ci nen moo di xaar gi ñuy xaar tey ji a ay manifestation fu nekk Ousmane Sonko ma ca kaso ba yéenekaay bi nee nañu sàkku ci askan wi ñuy résister ndax nee leen li ñuy xaar ëllëgu Ousmane Sonko wékkewu ci waaye ëllëgu askan wi yëpp ci wékke journal bi nañu yëngu-yëngal yi ñuy ragal mu am ci réew mi moo waral école yu bari ci réew mi tey jànguñu Dakar dem dikk moom it gaare na ay watam ngir bañ ko yàqal gouverneur ak aaye nañu njaay njaayum essence ci biteel ak circulation de roues yi mu di ay moto ki fii ba minuit journal bi dem na ci ay quartier ci ndakaaru yoo xam ne askano fa nekk taxawal nañu ay comité ngir défensal seen bopp ba ay manifester du faam li am ci dëkk bi ba tey journal bés bi le jour mi ngi ñuy wax ne mooy benn bés bu ñuy xaar ñaari verdict Walf Quotidien ko moo taxit mën nañoo dund ci réew mi àjjuma ju tàng jër vendredi de feu le Quotidien tudde ko attente sama dañu koy libéré am duñu ko libéré ak lu ci mën di xew le témoigné nañu àjjuma tey ji àjjuma ju am solo ci ëllëgu politique am moom Ousmane Sonko journal l'info bind ne Ousmane Sonko mi ngi jëm ci tournal bu am solo ci carré politique tey jii ci lay am lu leer nañ ci ndax dañu koy dugalaat ci liste électorale yi am det ci jamono ji ñuy xaaree dogalub cour suprême ak bu cour de justice su CEDEAO ci mbirum Ousmane Sonko réew mi quotidien ne nañu moom publique njiit moo ko jiite woon la ñu ca ndajama journal bi nee nañu mooy ab programme d'investissement prioritaire ngir diwaanu Kaffrine diggante 2024 jàpp 2026 ca fas yéene dugal anki dina kay nañu xaw ku ca nekkul de waaye président Macky moom ma nga ca tournée économique yi muy def ci réew mi moo ko may muy jël avance ci te fu mu ciy dem day gàddu ci loxob Amadou Ba wuute wuta ku koy campagnal l'observateur nañu moom président tàggatoo di wër di digge ay milliards fu mu dem digge fa milliards yu dul jeex digge na ba digge 1932 te wóoru ko ne dana ko def li mu waroon def jamono ji journal Tribune gis na ne mooy wër di def ab bilan dëkk bu mu ca dem wax la mu fa def ñu def demi tour dem ci journal Le Mandat politique bokk na ci mu xëy ci xët mu njëkk ak responsable politique ba ca war a fondé di jibisi taxawaayam ci wutum parrainage la ñu bi xëy di xibaar ba dañuy wax ne février 2024 yi di Mamadou Yatassay ci point actu ma nga fay wax ak ndawi réew mi di jeunes yi jël gaali loo di mbëkk wutali bitim réew mi ngi leen di ñaan ñu dakkal ko bañ di tayli seen bakkan mi ngi ñaanit askan wi ñu wooteel ko ngir ñu gàññeendoo ensemble ensemble ñun ñëpp nañu daje ci libération mi ngi ñuy xibaar ne waa ji di oustaz Omar Sall defeere woon nañu ko démb waaye jotutu gise ak juge bi tey jii ci lay delluwaat démb retour de parquet lañu ko def waaye su moytul ab dossier instruction la jëm ndax libé mi ngi ñuy wax ne am nañu ay xibaar yu leen xamal ne parquet bi bi mu jël mooy ubbi ci ab information judiciaire